jërë ngeen jëf tey di vendredi 15 janvier 2021 ñu dikki ñu ñëw pour jukki leen li gën a fës ci yéenekaay yu làmb ji di ko doore ak journal suñu làmb journal suñu làmb tey benn information phare la joxe mooy Gaston Mbengue jël na datu 4 avril pour tëgg ci combat Eumeu Sène Lac de Guiers lu ci ñuul nag mooy date boobu du promoteur boobu rek moo ko soxla ñeneen ñi également bëgg nañ ko Gaston mi ngi fay leeral ci biir journal bi ne date boobu moom moo mu ko CNG moo koy joxee seulement moom day sàkku ci waa CNG ñu yox ko mu tëgg combat boobu ci date boobu di datu fête de l'indépendance toujours ci biir suñu làmb Khadim Gadiaga ñu fekk ko moom mu ne moom am na ay crainte pour combat euh, Modou ak Ama Baldé ñu tenir ko ren ndax nee na ko kii euh, Covid bi mi ngi fi te jógu gi fi vaccin bi tamit ñëwagul te deux mille vingt 2022 la jëm kon nag moom mi ngi am ay ay jixi jaaxa toujours ci biir suñu làmb euh, ñu fekk fa Reug Reug Reug Reug moom comme nu ngeen ko xamee war na am benn. combat moom ak benn Camerounais bu tudd Ngalani Pierre Alain Ngalani sa bu 22 avril jotee sa Singapour rek boobu nag tey lay jógee New York pour jaar Paris doog a jàll euh, Singapour boo foofu nga xam ne foofu lay combat bi di amee. beneen information ci biir journal bi Matar Ba ñi yaakaar ne saison bi war na ubbi dinañ xaaraat ndax Matar Ba nekku fi journal bi nee ne dafa voyagé mi ngi Cameroun jamono ji ñuy wax ak yéen. toujours ci combat bi Mbaye Guèye Mbaye Guèye tigre premier tigre de Fass comme ni nga xamee comme dafa feebaroon nekk hôpital léegi nag journal bi nee na génn na clinique léegi mi ngi këram di ko ñaanal mu gën a euh, am féex. Euh, beneen information ci journal suñu làmb ñu fekk fa Max Mbargane journal bi nee na sans frontière lu koy woowee ndax Mbargane Max Mbargane moomu ku xewle mu teewal la boo xewlee woo ko mu ñëw te nit ñëpp apprécier nañ ko loolu muy loo xam ne nii lu baax la ci làmb ji. beneen information Lac 2 Lac 2 se sur la plage de Guédiawaye noonu la ko journal bi waxee Lac de boobu mi nga xam ne moo war a jàkkaarloog Eumeu seen nee na mi ngi ci plage yi di euh, entraîner bu baax pour euh, le jour J mu mën a jàkkaarloo ak Eumeu Sène beneen information également ci biir suñu làmb Mamadou Sarr ki moom mooy président écurie euh, Texas combat moom nee ne combat huis clos du meilleure formule moom bu sañoon euh, combat yooyu ñu buñ koy def euh, public bi man ko teewee euh, wax na également ci interview bu mu séq ak suñu làmb waxi écurie Texas nan la dundee saison blanche yi mais également wax na ci école de lutte boobu nga xam ne mooy Texas ñu jógee ci suñu làmb jëm ci journal record journal record moom benn étude la def ci écurie Boy Niang nee na écurie Boy Niang ci cinq euh, saisons yi ñu génn am na 63 combats 41 victoires deux défaites. loolu lépp ci cinq saisons yu ñu génn nee na Boy Niang euh, cinq saisons yooyu am na ci ñetti victoire ak benn défaite te loolu mooy wane personnalité am ci biir euh, écurie boobu ñëwaat également ci performance écurie bi am na 60 pour cent de réussite 13 combats par saison la écurie boobu doon def nee na également kenn ràññeeku na ci biir muy Kalmundoor Kalmundoor cinq saisons yooyu cinq combats la ci am cinq victoire Euh, record également ñëw na ci démarrage saison en huis clos nee na promoteur yi ak euh, CNG euh, seen ne parle ne parle pas le même langage maanaam bokk seen kàddu jubawul kii li ci ay kàddu loolu noonu la ko waxee wax ñëw na également ci Reug Reug mi war a euh, affronter Alain Ngalani di Camerounais boobu nga xam ne ci MMA lay jàkkaarloo ak moom le 22 janvier bii di ñëw sa Singapour nee na Reug Reug tey euh, le Séné Reug et son coach sénégalais à Singapour ce vendredi noonu la ko euh, journal bi waxee loolu moo fi gënoon fës ci yéenekaay yi tey ñu ngi leen di jox dig daje ba demain incha allah.